mbokk yi ñu ngi toog ak nas nas na kenn du ko présenté Sénégal buñ nee nas ne nas bu guy gi nas bu géejawaay nas maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, di nuyu waa Sénégal gépp di baalu ñëpp àq ci weeru koor gi nekk di wax ni nañ ñëpp baal àq quoi waaw. ñu ñëw kër guy gi tey mu dajale ñëpp euh, ci ndogu bi nga xamante ne woor ba ngoon jot nga yëkkati benn tàndarma jox ko benn jaamu yàlla ñu laa nattal lan moo ci nekk ci yiw. loolu lan la. waa di sant yàlla rek parce que lii moom wax dëgg yàlla lu ñuy rafetlu la quoi parce que Sénégal sax lii sax la baaxoo ñun lii lañ xam lii li nekk nii ñun lii lañ xam Sénégal ngay gis xiif dugg si kër añ jot ñu ne la kaay añ Sénégal ngay gis xiif dugg si kër reer jot ñu ne la kaay reer lii mu def ni man dama ko ci encouragé quoi dama ko ci encouragé bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla rek lépp loo xam ne mën na ko ren bu déwénee yàlla mën lu ko ëpp quoi ci barke weeru koor bi ñu nekk. am nañ date le 29 waaw. 29 euh, août. ngeen fas yéene laal ak doomu caaray bi xale bi nga xamante ne macha allah wane na boppam ci làmb. waaw mais damay profito sax si occasion bi comme tey laa am occasion bi quoi di encourager Reug Reug si MMA bi mu doon def parce que dafa am défaite défaite bi metti ñu ñëpp parce que ba muy dem drapeau Sénégal la yóbbu woon ñu ñëpp ñu ko doon supporter doon ko ñaanal yàlla yàlla def mu dem bëre ñàkk di ko encouragé di ko wax ne ko bu mu découragé parce que jàmbaar la ci loolu ci côté MMA bi quoi jàmbaar la ci euh, maa ngi koy ñaanal yàlla li des ci combat am MMA mi combat bu mu ci amati rek yàlla nekk ndam quoi léegi nag pour ci combat ba guy gi bi ñun xam na ni am nañ combat mais Reug Reug moom it xam na ni moom it am na combat quoi euh, le 29 xam naa ni moom làmb ju du nekk làmb ju yomb quoi làmb ju metti la waaw xam nañ importance nag bi nga xam ne moom la combat bi am ci ñun xam nañ combat bi buñ ko gañee fi mu ñu yóbbu. yooyu yëpp ñun xam nañ ko quoi ba tax na buñ ci eggee rek ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may ndam lu sedd guy si kaw rëg rëg quoi. ndam bi nan ngeen ko bëggee ci xeex wala ci bëre parce que ñu bari nee nañ guy gi ñemewul taxaw jàmmaarloog rëg rëg weccante moom kurpañ. non guy gi day dem États-Unis day ngi xeex parce que xam nañu ne rëg rëg li ñu ko gis muy def si MMA bi bu ñëwee xam nañ ne xeex lay indi quoi te combat bi sax ñun bëgguñu sax ñoo jàppante bëre noonu mu jeex ñun dañu bëgg xeex combat bi nii ñu jëm ni dañu bëgg xeex quoi parce que gis nañ Reug Reug li muy def si MMA bi ñun instant bi ñu ñun leen rek la ñuy jàng muy xeex ci combat bi ñuy jëm quoi di ñaan yàlla rek buñ ci yeggee rek yàlla ñu yàlla may ndam quoi parce que kenn du jëm guerre euh, di wax ni ngay def quoi mais xeex moom mënul ñàkk ci làmb ji ñu jëm quoi incha allah. ñu gis Reug Reug waat ni bu daanul guy gi day bàyyi bëre guy gi moom it mu waat ni bu daanul Reug Reug day bàyyi bëre ñoom ñaar est-ce que loolu war na leen ci làmb. waaw mais xam nga am na loo xam ne waxu mbër la. Mm-hmm. mi moom xam en général bu jëmee combat des fois nga gis yenn kii yoo xam ne xam nga loolu waxi mbër la rek quoi loolu day wane ni rek combat bi dafa nar neex quoi waaw day wane ni rek si li ñu jëm maanaam loo xam ne amateur yëpp nañ kontaan bu buñ ci yeggee quoi mais man li may ñaan rek mooy buñ ci duggee rek yàlla nañu yàlla may ndam quoi di ñaanal nag Reug Reug euh, jàmm di ko ñaanal guy gi di ko ñaanal tamit promoteur bi quoi ñu ñëpp ñu dugg si làmb si bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabil r yàlla defal ñu si ndam lu sedd guy quoi incha allah. gis nañ mbër yu bari dañu jël ñaari avance ñuy jël ñett avance ku mel ni Balla gay jël na ñaar jël na ñett booy Niang jël na ñaar ñeneen ak ñeneen ñu guy gi est ñu ngi leen di démarché beneen combat ci suuf. waaw am na ñaari promoteur yu bokkul ñu démarché benn bi combat jànk la ñun boobu ñun sax lañ gën a soxla waaw boo xam ni si logique gu grand compte petit bi lay dugg ñun combat boobu ñun lañ gën a soxla benn bi aussi revanche la quoi dafa mbër moo xam ne dañ ko daanoon bëriwaat ak moom mu am lu ci xew. ñu proposé waat ñu ko mais bu ñu amee combat jànk bi ñun moom moo ñu gënal quoi mais ay promoteur ñaa ngi wax mais jubóoguñu ak ñoom quoi mais ñaar yëpp ñu ci am baax na quoi. man ma ñëw ci combat yi rek parce que combat bu ñu nee combat boo xam ne day may revanche mooy ki mu bëre loon di ko may revanche kooku Ama Baldé la diggante moom Ama Baldé am na ñu ko bëgg di ko démarrer fu ñu ci toll. non Ama Baldé guy gi moom jeexagul quoi des na ak boobu moom jeexagul moom xam na ne quel que soit alpha wiiri jaari ndaara la ñoom ñaar dinañ dajawaat quoi. mais instant bi nii nii moom logique grand contre boobu nga xam ne moo xew ñun combat boobu ñun lañ gën a bëgg quoi. kon leen gënal Ama Baldé. non pas jeune <laughs> moo guy gi. waaw mais man mënu ma sori si loolu quoi mais daal am na. non non non mënu ma si sori. waaw dañ bàyyi rek bu sottee incha allahu rabbi buñ ko yekkee rek ñëpp xam ko quoi mais ñun wax nañ ci ak ay ñaari promoteur kenn ki moom sori nañ trop quoi xam nga man la am bu ma promoteur bu crédible woowee rek damay sawar a wax ak moom quoi mais wax nañ ba sori nañ ci trop quoi peut-être xam naa ni camp laa xamul ñoom fan lañ tollook ñoom quoi mais ñun suñu côté moom avancé nañ ci bu baax quoi mais combat boobu moom bu taxawoon parce que dañoo bëgg a woon Sénégal ñëpp ni guy dafa mën mbapat te mbër moomu ñuy wax mbëru mbapat la quoi maanaam damay faral sax di dégg si ay kàddoom mu naan combat bi mbër mi du ñëw mais bërëkat bi mooy ñëw. non non non man du ma dugg si kii bi dama bëgg nag bii bu ñu ko jëlee yàlla defee combat bi taxaw mu indi mbër mi indi bërëkat bi quoi. bu ko defee combat bi guy gi ñu dañuy privilégié mbapat si combat boobu jàppanteeg moom bëre ba Sénégal yëpp jóg taxaw ñu daan ko jël bu set wecc quoi waaw parce que combat boobu moom ñor nañu trop quoi waaw. naa la Nas kontaan bu baax baax. waaw maa ngi lay nuyu yow di la sant di nuyu waa Sénégal ñëpp di revenir rek nañ ni ñuy baal àq ñu baal ñëpp àq quoi waaw ci parc weeru koor bi jërëjëf waaw jërëjëf. jërëjëf Nas.